Nekoma oui, Kouyaraoui, le président de tous les présidents, le président des présidents, le Yakar, la lumière du monde, président Macky Sall, Salagari Lamtoro, Françoise Hélène Gay, Saligay Rafedne, Françoise Hélène Gay, Nema Woyal Mapsu président, Diarama Françoise Hélène Gay. lisaan Françoise amal jàmm yal na la yàlla taxaw Françoise Hélène Guèye wallahi jàmm rek ngay am ndax Macky c'est le meilleur président depuis que le Sénégal est Sénégal jarama Sallangari président Macky Sall c'est pour la continuité ah <laughs> président Macky Sénégal jigiti la lamtara biye goro président Macky Sall président Macky chronies partout. Le président Macky Sall est transéant dans le monde, respecté partout. Yarama Salangari. Le président le plus innovateur, le plus discret, le plus discipliné, le plus fidèle, le plus réalisateur, le meilleur président. On avec lui. Macky Sall vive le président Macky Sall wallahi wallahi Macky suñu kàtt yay boroom salla ngaari lam tooro président Macky Sénégal jigiti la waaw di ñëw ci benn golo benn nit koo xam ni dafa yaakaar ni moom mu ngi xam ni moom moom Sénégal ñu koy woowee Ousmane Sonko Ousmane Sonko yow li li nga fàttali mooy yow tabaxuñu Sénégal ngir yow déedéet Ousmane li nga fàttali mooy Sénégal buñ ko tabaxee ngir askanu Sénégal gi ñoo tax ñu taxaw ko Sonko say intérêt bopp bu mu la tax nga bëgg a taal Sénégal say xel. war na laa yee ci lu bari da nga fee woote première casserole mu dox deuxième bi doxul troisième bi dafa gën a mag kenn génnul ndax nit ñi tal gumba tal na leneen lu dul ay tëbi yow li war waral askan bi mooy dañ laa jiiñ lu toll ni viol ki la ko jiiñ mu ngi fii di xale bu ndaw di sàkku chaque jour ñu woo la procès xale bu ndaw boobee di ñaan pour yow ñu woo la procès boobu ba tey man luy day yow Ousmane Sonko amoo fulla ngir dem wuti wuy ji ci procès boobu taxaw jàkkaarloo xale bi waaw Ousmane Sonko li tax nit ñi gën a xam ni yaa quelque chose mooy test test ADN bi nga xam ni da nga koo refusé c'est normal il faut nga taxaw def test ADN ñu xool ni li ñu génnee ci xale bi ndax yow yaa ko moom wala moom moo ko yeewil askan bi moo gën nga bëgg leen a yeew ci problème viol problème boo xam ni yow ak Adji Sarr la tey àdduna si yëpp yëg nañ ni problème boo xam ni ràng nga euh, jël nga problème bi na gouvernement bi la yow daal loo waaye def rek nga ni gouvernement la élèves yi génn di marche nga ni gouvernement la mais yow loolu ba kañ Ousmane Sonko réew nag balaa ñu ko jox kenn suñu réew mii dinañ la seet seetaat la yow de dañ lay jiiñ jiiñ viol lañ lay jiiñ viol te leeral leeralgul kooku waroon taxaw sa naan candidat nga deux mille deux mille <laughs> deux mille vingt quatre non ay réel nga ma def sax parce que yow da nga nekk di cinéma sénégalais demal leeral sa diggante ak Adji Sarr te leeral ko. defal test ADN ñu xool ndax yow la wala du yow Ousmane Sonko demal bu bu fekkee ni loolu ngeen dem taxaw public nga setal sa der pour nga mën a doon président mais Ousmane Sonko yow sa passeport dañ koo téye pour nga génn pour nga bañ a génn waa ku téye sa passeport pour nga bëgg a génn est-ce que kooku dina la baax pour nga pour nga doon président de la République du Sénégal Ousmane sa Ousmane Sonko. bët du yanu de waaye xam na ne lu bopp artan dama ni la bàyyi sénégalais yi ngay foowe te jéem a def ci sa test ADN bi kon di leen jaajëfal nii laa koy doxalee rek ak Ousmane waaw yow daal boo bàyyiwul duñu bàyyi di jaajëfal ñëpp di ziar ñëpp di coro ziar ñoom aw aw di ziar awalaay Massène di ziar ñëpp Aminta waaw di ziar ñëpp daal di jox ñëpp wàccuwaay di leen ñaanal jàmm di wax ni fii lay xewee ci Godass TV saa su ne fii lañuy génn di def ay jàngat ci Ousmane Sonko ah, parce que nag réew bala nga kaa yor daal il faut nga set wecc ni ko ma ki yar waaw ah, di jaajëfal ñëpp du nuyu ñëpp di ziar ñëpp.